ak mën di doon boo wax lu baax euh, dañu daal di dikk euh, def taxaw seetlu ci li nga xamante ni bi rek moom moo xew ci réewum Sénégal euh, suñu développement réew suñu koom-koom gu yëngatu jamono ji ñu toll économie Sénégal nekk en danger ay dund goo xamante ne bi ñu ngi njort mu yokk wala mu ñàkk yokku euh, Tunkara nga nekkoon fi ci gouvernement bi nekkoon conseil bu Macky Sall tey Sénégal euh, Macky Sall bàyyi na ko ci étape boo xamante ne bi dund gu seeroon na Sénégal yu bëri di laaj euh, pour ñu daal di koy wàññi kii nga xamante ni moo fi nekk moo nekk Elimane Diorine ji ne mënul wàññeeku tax bu ñu ko wàññee dina indi dina tëbatëb ñëw yéeg ak doole te bu boobaat du arrangé man du ma arrangé du arrangé keneen donc bu ñuy wàññee nañ ko def ndànk ba nga xam ne bu wàññee day nekk loo xam ne c'est définitif tey ci yenn fànn la ñu mën a mën a jaare ba fexe suqaliwaat suñu koom-koom euh, ak euh, ji nga xamante ni moom la ñuy dund jamono ju ñu toll amaguñu li nga xam ne mooy autosuffisance alimentaire lu ëpp li ñuy dund dañ koy jéggaane ci benn fan nga yaakaar ne gouvernement bu bees yu ñu toog fi la ñu mën a jaare jamono ji ñu tollu teg ay mécanique yu am solo pour mën a fexe ba suñu koom-koom dëgëraat euh, dund moom kenn mënu koo wàññi àdduna bi muy àdduna ba léegi dund dafay yokk njëg yu yokk moom la tubaab bi di woowee inflation léegi inflation njëg yi yokk dafa am sabab yu bari bokk na si nit ñi dañuy am ay jumtukaay yu bees jumtukaay yu bees yooyu dañuy ñëw ak seeni njëkk njëkk yooyu day yëkkati yeneen njëg beneen bi yokk njëkk yi mhm. mooy banque centrale saa yu defaree xaalis dugal ko ci koom bi mhm. xaalis boobu dafay yokk njëkk yi beneen bi yokk njëkk yi mooy li ñuy woowee infla inflation conjoncturelle mooy suñu jékki-jékki xew-xew am comme tabaski nii xar yi day yokk kenn mu mënu ci dara mhm. euh, bu ñu beneen inflation nag leneen luy indi njëkk yokk yokku mooy li premier ministre wax mooy ñun dañuy jéegaane. li ëpp si li ñuy jëflante. li ñuy jëfandikoo. dañ koy jëndee bitim réew sa micro yi sa caméra bi sa euh, décor bi sa lampe yi sa mèche yi nga def sa rouge à lèvres bi sa jaaro yi lépp dañ koy jéegaane bitim réew léegi bitim réew bu ñu yokkee ñun mënuñu si dara day yokku fi ba pare àdduna nag am ay jafe-jafe du mel ni léeg-léeg mu fii léeg-léeg mu am attentat yooyu yëpp dafay yékkati njëkk yi kon njëkk àdduna moom. bi muy àdduna ba léegi njëkk yi day gën di yokk d'accord kenn amul loolu amul tànk ginnaaw euh, ma jox la benn misaal man dama jàngee fii Saint-Pierre bu Grand Dakar mhm. euh, sama ñi ma jàngal ñëpp ma leen di delloo njukkal foofu ñoom frère Patrice jàngal ñu jàng jàng bu dëgër nag ñun dañoo jàngoon jàng bu dëgër mhm. ñun suñu jàngal yu bees yi bokkut <laughs> suñu bu dëgëroon mhm. léegi man fàttaliku naa Euh, facture ma yor facture di ko fay sama yaay jox ma may fay euh, ay cinq mille francs CFA weer mais léegi école yooyu ñoom ñëpp quarante mille la ñuy fay loolu amul tànk ginnaaw école du ubbi mukk ñu ne la ren scolarité bi day wàññi mënta ne loolu mënul ne mësu nga ko dégg. non de te du mësa ne yow fa nga doon jàngee di fay. Euh, mais ci côté dund gi parce que. Euh, tamit loolu dund la bokk de. Ah. mais tamit Tounkara nit bu lekkul ci biiram ndax dina mën tàll jàng. nit bu lekkul ba su dina mën tàll li nga xamante ne bi mooy liggéey. am na ñoo xam ne Khadija boo demee seen kër dañuy takk seen biir léeg-léeg bu ñu añee lu ñu reer ngir fayal seen doom ñu jàngi man sama benn étudiant yaayam mës na ñëw ma dàq ko. Mhm. muy reewante ma dàq ko yaayam ñëw ni ma kii daa ñàkk jom ndax moom ñun saa yu ko fayalee dinañ toog weer woo xam ni kër gi. guddi cin du fi tàkk tey boo duggee fii si banlieue bi fii di nga fekk kër yoo xam ne bu ñu añee du ñu reer waaye dañuy dem fayal seen doom ñu jàngi te fay bi ngay jàngee mais si dund la bokk si coût de la vie la bokk transport bi ngay def si coût de la vie la bokk facture yi ngay fay woyofal bi temps yokku si coût de la vie la bokk euh, xam nga lan moo am solo nit ñi am ay liggéey yoo xam ne dinañ leen fay loo xam ne njëkk yi lu mu seer seer dinañ ko mën a jënd pour loolu nag dafa soxla ñu def li ñuy woowee ñu am politique d'industrialisation ñu am ay industrie maanaam li ñuy defar ñun li ñuy jëfandikoo ñun ñu koy defar. d'accord loolu am solo. d'accord li ñuy jëfandikoo ñu koy daal di defar euh, jamono ju ñu toll Sénégal euh, daanaka li ñu fi mën a compter ci ay usines yuy defar bareetul bokkoon na fi bori woon na fi nag amoon na fi ay usines mais euh, yu bëri dañoo daal di mujj nërmeelu lan moo ko waral nërmeelu googu ba tax Sénégal tey jamono ji ñu toll euh, lu bari ñu koy cëkkaan macha allah waaw lii nag mooy mooy question yu baax yi Khadija mhm. vraiment politique beeg yooyu dañu see sonn ah ñuy wax économie dama euh, lu am solo mooy ñun mënuñu yor ay këru liggéeyukaay mhm. yorin bu rafet mhm. ndax yor këru liggéeyukaay yorin bu rafet moom moo tudd management efficace d'accord ñun duñu ay manager yu efficace parce que ñun léeg-léeg dañuy par parloo euh, li jiitu ci management boo yoree këru liggéeyukaay mooy li ñuy wax ci gestion des ressources humaines l'homme qu'il faut à la place qu'il faut la femme qu'il faut à la place qu'il faut ki war ki nga war a liggéeyloo nga teg ko foofu waaye ñun léeg-léeg ngay jël ay militant ay ay client ay mbokk ay ñu ne tuux leen ci biir entreprise bi entreprise du ko antan day daanu ba pare du ñu am politique de euh, de renouvellement maanaam euh, de modernisation ñu ñu méngale entreprise bi ak jamono parce que àdduna day dox yow sa outil de production yi nga am mhm. boo ko méngalewul ak jamono rek da ngay jekki say coût maanaam li ngay jaayee day seer ba nga xam ni sa concurrent bi moom mhm. comme moom ba sa méngalee na ko ak jamono day am lu ñuy woowee économie de d'échelle léegi moom ay njëgam day gën a wàññeeku sa bos su ko defee consommateur bi su ñëwee su gisee yow ngay jaay saabu kii di jaay saabu kii saaboom gën a yomb bi gën a yomb lay jënd yow sa bos kenn dootul jar su ko defee nga daanu donc soo jëlee yooyu yëpp nga nga boole leen maanaam ni ñuy yore këru liggéey këru liggéeyukaay baaxul dañ koy politiquer dañ siy dugal suñu ay mbokk dañuy jël ku munul ñu ñu ñu tabb ko léegi loolu ba pare du ñu moderniser du ñu gaaw moderniser outil de production yi. d'accord moo tax këru liggéeyukaay day daanu. looloo tax këru liggéeyukaay yi di daanu jamono juñ toll ci ban fànn la gouvernement bi war a mën a taxaw pour soqaliwaat ko euh, pour mën mën ci jaare jéem a yëkkantiwaat suñu koom-koom. Ah, comme que autosuffisance kese. autosuffisance alimentaire kese du koom-koom. autosuffisance alimentaire am na solo lool. Mhm. waaye koom dëgg dëgg dëgg. Mhm. jamono jii àdduna bi fi mu toll. Mhm. ñu ngi wax wàllum. transition mm-hmm. écologique fii léegi 2035 mm-hmm. mm-hmm. tubaab yi nee nañ ñoom bëggatuñu oto buy daw essence ak diesel di daw seen réew ay oto électrique rek la ñuy daw beneen bi mooy fi mu ñu ngi wax waxu intelligence artificielle d'accord ñu ngi wax économie du savoir ñun il faut ñu soobu si yooyu parce que tey boo jëlee internet internet bi ñu lan lañ siy produire ñun dañuy consommer rek nekk TikTok TikTok li ñu jox yëpp dof surtout ça. gis nga TikTok jëlee gis nañ yeneen yi nga xamante lu ci mel ni ay États-Unis ak yooyu ñu ngi waaj a bannir li nga xamante ne bi rek mooy TikTok ci seen. waaw parce que ñoom dañuy dem dañuy gis ni chinois yi dañ leen di guerre. guerre bi mooy chinois yi. TikTok ñoom ñi moom euh, TikTok seen réew algorithme bi doxal algorithme yi doxal TikTok. Mhm. seen réew li mu leen di wan. Mhm. mooy culture. Mhm. ak production. ñoom ñoom seen algorithme si yooyu lay dox dañuy jàngal chinois bu ndaw bi mu gën a xam réewam gën a fonk démbam gën a fonk askanam mhm. ba pare jàngal ko nag nan la xelam di gën a yeewoo mu amal ay affaire mu créer affaire mais ñun dañuy jàngal nan lañuy gën a nan lañ gën dofee mhm. ku gën a ñàkk xorom mhm. léeg mooy ëpp vue ngay xool di défilé di défilé xam nga du jeex TikTok moom du jeex di défilé de perte temps perte temps léegi fii ñaar fukki at nit ñooñu nga créer mais buñ ñëwee mais ñu mun def dara. chinois yi nag pendant ce temps. ñoom ñi ngi am nañ nit ñoo xam ne. xam nañ ñoom ñooy ñan. xam nañ seen cosaan. xam nañ seen aada. xam nañ lan mooy les vrais défis de la vie su ko defee ñoom dañuy ñëw raw la donc fii léegi vingt ans kii seetaan TikTok ak algorithme mu dof ah waxi dof ak kii seetaan TikTok ak algorithme culture ak euh, euh, économie ak création ak invention kooku yéen ñaar fi rek vingt ans doo leen doon benn te ñun yooyu yëngawuñ si yooyu nag mooy les de débats foofu la ñu daal war a ah, pour mën a ñun ko sax mhm. ba pare suñu réew dañ leen war a industrialiser mooy dañu war a am ay industrie tey Khadija mhm. ñun Sénégal puso mhm. dañ koy jéegaane kuddu dañ koy jéegaane silip yooyu yëpp koy jéegaane euh, wëñ dañ koy jéegaane euh, waxal loo mënti wax ñun dañuy jéegaane lépp te suñu production coton fii def des naa am doole. lool mais mais il faut nga tàmmali. Mhm. xam nga am tey xam nga ban réew. mooy réew bi ñuy gën a defar chocolat si àdduna bi est-ce xam nga ko. ah la Suisse. mooy réew bi ñu gën a ëppee defar chocolat. Suisse cacao du fa sax. d'accord dañ koy jéggaane dañ koy dem jëli. tey boo taxawee si benn mbir li nga soxla. da ngay dem jëli ko feneen Allemagne. mooy réew bi gën a torréfier café si àdduna bi. benn pepp café du sax Allemagne. Ah. da ngay tàmmali boo tàmmalee après nga tàmm après nga soog nag xool. yan yoon yan buntu ngay fëgg. pour mhm. xëcc affaire yi mu ñëw léegi Sénégal. Mhm. ñun dañu am benn chance bu mag. Mhm. réew yi ñu wër yëpp. muy ñaari Guinée yi nekk ci sunu euh, au sud muy Mali. muy Mauritanie ñun réew yooyu yëpp. mën nañ leen jaay ay mbir. ñun tey waroon nañu am ay ay industrie yoo xam ni day defar. Mhm. pour di yóbbu Guinée Bissau di yóbbu Guinée Conakry. di yóbbu Mali di yóbbu Burkina Faso. di yóbbu Cap Vert. Mhm. loolu est que laajul tamit genn déggoo benn Afrique unie boo xamante ni bi day soxal suñu njiiti réew yi. non euh, xam nga Afrique unie moom yàgg nañ koo wax. ñoom Kwame Nkrumah depuis 1956 ñu ngi wax loolu. yow ju doogoo man ju doogu ma suñuy. Mhm. am na ñoo xam seen i maam sax ju dooguñu loolu. Euh, mbébét la bu rafet boo xam ni amaana mën na ñëw bés. yàlla baax na. bon ñun ñëpp ko bëgg parce que mbooloo mooy doolee waaye Khadija. tey boo demee euh, euh, Europe. Mm-hmm. Suisse réew mu ndaw la ndaw la. Liechtenstein réew mu ndaw a ndaw la. pourtant ñooñu dañu développé seen économie ba nga xam ni. am nañu ay industrie am nañu ay xalaatkat ñu ngi yëngu si wàllu koom yu bees yi. ba tey ñoom namuñu dara. donc dañuy war a bañ ut ay lay. pour bañ jëm kanam tey ñun dara terewuñu tey ma ma jox la ñaari misaal mhm. basin yi gën a baax si àdduna bi fan lañ koy defaree mhm. du Allemagne ak Autriche mhm. fan lañ koy defaree allemand ak autrichien du sol basin xamu ko xamu ko déedéet pour ñun la da koy defar indi ko Afrique jaay nu ñu koy jaay jeex kon ñun war nañ mun a am lu ñuy defar fii di ko yóbbu Europe di ko jaay loo xam du pour ñun tey euh, vaccin yi gën a baax si àdduna bi fi ñu koy defaree Hollande Hollande lañ du sol vax xamul sax mooy la pour ñun la tey yow am na loo xam ne da nga koy industrie boo xam ne da nga koy sànc fii pour di jaay waa Niger pour di jaay waa Burkina Faso pour di jaay waa waa d'Ivoire pour di jaay